asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ñu suivre ci Leewtoo TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen leen wax ne nag du ñu mën a wax nuyoo te ñaanuñu yàlla corona bi ne ci àddina bi yàlla na ko fi yàlla jëlee ci barke yonent bi sallallahu alayhi loolu la ñuy ñaan teg ko ci àddina bi yépp tey nag dañ jàkkaarloo koo xam ne nii kut su jamong lañ koy wax di franco sénégalais mën naa ne parce que ñaari réew yëpp fu ci ne doomu réew moom la doomu réewu France la doomu réewu ñu jàkkaarloo ak moom wax fas ne waxtaan ak moom parce que moom France lay dund mais actuellement mu ngi Sénégal defe naa fi la ko feebar bu fekk waxtaan ak moom ci feebar waxtaan laal ak moom tuuti ci làmb parce que coach su la ci wàllum boxe yu mel ni ki noonu coach su maa ngi lay nuyu di la ziar. Babacar maa ngi lay fay. Mhm. donc du nuyu waa Sénégal du nuyu sama mbokk diaspora bi fu waay mën a nekk. Mhm. donc euh, di nuyu sama xarit sama sëriñ sëñ naa Mbacké bu sëñ Fallou. donc yal na ko yàlla may gudd fan. may ko wër sàmm ko sàmm njabootam. di nuyu sëñ Pape Malick Sy sëñ Babacar Sy. donc yal na ko yàlla may gudd fan. may ko wër sàmm ko sàmm njabootam. di nuyu kilifa diine yëpp nga xam ne ñu ngi senegal ak kilifa aada yi. Mhm. maa ngi leen di ziar di nuyu. Mhm. waaw. kon su jabam tey nga tënkal ma lu gàtt rek balaa may dugg ak yow ci wàllum corona yooyu. Euh, maanaam yëngu-yëngu bi lan la course jabon ci lu gàtt mooy kan lu muy liggéey France wala lu mel ni ci moom. donc gën a leer ci ñi seetaan. waaw gis nga donc euh, donc coach sportif la. Mhm. du entraîneur de box mhm. donc nekkul sama liggéey sama liggéey nag vraiment c'est une passion. Mhm. donc mais am naa beneen liggéey yu may yëngu si af waa euh, équipement. donc si benn société américaine vraiment. waaw na solo. léegi bu ñu ñëwee ak yow ngay doomu réewu Sénégal mais du doomu réewu France coronavirus ñëw dal ci àddina bi mais gën a dal sax ci réew yu am doole yi. Mhm. ay Chine France Espagne Italie ay réew yu mag a mag ay États-Unis yow loolu en tant que euh, doomu nit sax laay wax doomu aadama loolu noo ko dundee ak noo ci noo ko jàngat. ah mais vraiment dafa nekk euh, feebar bu doy waar. Mhm. feebar bi nga xam ne nattu la yàlla moo ñu ko teg. Mhm. donc wane kattanam. donc euh, ne kenn mënul man rek man maa mën. donc vraiment euh, mu nekk nag feebar bu nga xam ne vraiment sa existe mm-hmm. na si ñëpp bàyyi xel mm-hmm. na si ñëpp def attention quoi mm-hmm. vraiment waaw mu mel ni tamit euh, yow bi affaire bi am Sénégal la la fekk wala. waaw bu muy am nag mu ma fekk France. France donc France bon amoon na amoon na ay soupçons si yenn yenn nit yi. mais boobu melagul nii mais nii quoi donc vraiment. su fekkee sooy voyager sax si aéroport de Paris. donc dañ lay laaj ndax jóge nga si Chine. Euh, temps yële. Mhm. donc loolu yëpp ay question ay question yoo xam ne dañ la koy posé mais daal ba muy ñëw la Sénégal ba muy ñëw Sénégal tamit aussi gars yi ñu ko dem waxtaanee mhm. amul woon cas yu bëri donc vraiment donc euh, man le le le le laa ñëw. le 2 mars le 2 mars laa ñëw. donc euh, et puis voilà quoi. Mhm. donc voilà waaw. léegi le 2 mars nga ñëw Sénégal est-ce que actuellement am nga ay njaboot yu nekk France foofu yaa ngi diggante ak ñoom wala. waaw maa ngi sama sœur yi ñu ngi fa sama frère yi ñu ngi fa. Mhm. donc sama sama sama doom tamit mu ngi fa. donc mhm. euh, voilà mais. ñoom ñu ngi si jàmm. waaw ñu ngi si jàmm alhamdulilah. ñëpp ñu mhm. ngi si jàmm alhamdulilah. waaw ñëpp ñu ngi si jàmm. Euh, bu ñu continuer ba tey boo amoon tey benn sensibilisation boo xam da nga koy wax di ko jox sénégalais yi lan lay doom mooy euh, sénégalais yi. nañu toog seen kër. nu ko ñu mm-hmm. ko euh, njiitu réew bi waxee. Mm-hmm. donc nañu toog seen kër. di jël mm-hmm. ay précautions. bañoo nuyo bi. ah donc di raxas seen loxo de temps en temps. donc euh, vraiment euh, nañu wàññi nag tamit aussi dem ak dikk bi. parce que tamit aussi ku nekk na toog sa kër. ba ñu ba yàlla saafara. ñu jàll jàngoro bi mm-hmm. su ko defee ñëpp delluwaat seen activité mm-hmm. te vraiment nañu nañu tappewaat xol yi ñu mm-hmm. tàppe xol yi nañ tàppe xol yi moom da baax de daal donc yi waaw nañ tàppe xol yi nañu nañu yéeneente jàmm ah doo gis sa morom rek di ko waxal lu bon xam nga donc nañu maandu donc tey fu mu nekk nii yàlla moo ñu wan boppam ah donc vraiment daal nañu nañu nañu tàppe xol yi daal waaw ñu tàppe xol yi donc yërëmante dimbalante mhm. ah donc bañ a waxante lu ñaaw mhm. waaw parce que lu ñaaw dara jar ko fi mhm. aduna bi dafa jeex ba pare waaw dañ ñëpp yéene jàmm su ko defee euh, réew mi euh, dox dox parce que ay nit yu jàmm rek ay nit yu kilifa yu baax rek a fi tëdd. ñoo nekk ci réew mi waaw ñoo nekk si réew mi. Mhm. kilifa diine yi. Mhm. nañ génne seen kursi di mhm. ñaan. parce que nag lii moom. ñaan rek moo ko mën a saafara. moo ko a saafara donc waaw donc daal ñu ngi maa ngi tàllal loxo. kilifa diine yëpp yi nga xam ne ñu ngi Sénégal. ah ñu yore seen kursi. ñaan si yàlla. léegi bu ñu continuer suma parce que du ñu mën a wax tamit eh, laal ñu ci làmb tuuti. ndax dañ la gisoon nga am ak relation Sa Euh, la fois euh, ci combat moom Boy Niang ma jékki-jékki gisaat la ngay ngay ànd ak Franc mel ni Franc sax bokk nga ñi koy préparé lu waral euh, loolu diggante ñaari mbir yooyu non dara waral ko c'est que Sa Thiès bon jàmm laa sekkoon teg moom mais Sa donc jàmm laa sekkoon teg moom ah mm-hmm. ñuy romb dañuy nuyonte mm-hmm. et puis voilà xëy na tamit aussi dama ko fekkoon muy liggéey at gii mm-hmm. gii nekk sama grand nekk sama grand depuis temps temps xale donc mook sama sœur bi nga xam ne dafa gaañu moom ñoom bokkoon classe temps temps xale. donc moo tax ma gis Sa Thiès muy entraîné foofu gii ne moom ñu naa ko jàppale. Mhm. donc relation bi noonu la noonu noonu la demee quoi mais mhm. vraiment amul du relation boo xam ne dafa am. damay dem seen kër ñu ñëw sama kër ñoo non relation boobu amuñu ko woon quoi mm. donc mooy voilà mais daal euh, jàmm laa sekkante ak moom mm. te vraiment nit ku baax la mm. nit ku yaru la nit ku am pas-pas la donc vraiment di ñaanal yàlla rek yàlla na ko may gudd fan may ko wër sàmm ko bu baax a baax a baax yaa ngi déggante ak moom Euh, non gëj naa dégganteeg moom nag. Mhm. gëj naa dégganteeg moom yàgg na. Mhm. mais gisee nañu la dernière fois ba ma demee olympique di seeti sama grand kii. donc euh, tase nañu nu ñu yoonte et puis voilà. Mhm. donc loolu la mais jàmm rek laa sekkanteeg. jàmm ngeen sax waaw bu dee Franc. Franc nag moom sama rakk la dafa am benn sama benn ancien international benn footballeur. mu ñuy wax Khalifa Sankare. donc moom mu ngi Belgique. di fi football. donc moom a booleeg Franc. donc Franc nag nekk nit ku nit ku yaru mhm. nekk xale bu xale bu am yitte mhm. xale bu am pas-pas mhm. xale bu bugg lu muy def tamit aussi donc ma ne nag xale bi kii soo ko jàppalee dina dem parce que respecté na doomu aadama daal vraiment te loolu moom mooy àdduna gis nga nit ki foo mënta toll rek da nga am yitte da nga am pas-pas waaw Euh, tey gis nañ moom Franc moom mu nekk mbër bi nga xam ne nii vraiment mu ngi ci lancé bu doy waar vite combat vite victoire. Mhm. yéen ngeen nga bokk si ñu koy préparé Franc moom noo ko gisee tey par rapport a làmb. non mais am na évolution. Mhm. Euh, Franc am na évolution donc mu ngi léegi il est mature. Mhm. donc xam na lu mu bëgg. donc euh, récemment demoon na États-Unis dem entraîné na fa. donc ñëwaat. aussi am ay tournois yoo xam ne gagné na ko mhm. donc loolu mooy wane la il professionnel. Mhm. donc am te am na entourage bu baax te loolu moom moo solo waaw. am na ñuy wax mhm. ne mën na nekk roi des arènes yow loolu am nga. ah loolu loolu dama ko gëm. loolu daf ko gëm te lu nekk lay mun a doon. parce que Franc euh, kattan bi am na ko macha allah. liggéey bi am na ko macha allah. donc te vraiment gëm na lu muy def. te xam nga tamit aussi su fekkee ne da nga da nga nekk si sport nga ko mu nekk sa passion. ah donc euh, da nga koy gëm da koy gëm lu ngay def da nga ko war a gëm. donc te gis naa ne Franc lu da nga koy gëm da koy gëm lu ngay def da nga ko war a gëm. donc te gis naa ne Franc loolu loolu muy def. Mm-hmm. daf ko gëm te daf ko bëgg. gëm na ko te bëgg na waaw tey bu doon bëreeg Sa Thiès fooy taxawee. ah mais su dee bëreeg Sa Thiès nag moom vraiment ah si Franc laa nekk. si Franc donc c' est normal que ma faral Franc. Mm-hmm. mais nag euh, du tax ne relation waaw relation ma am ak moom ma am ko ma ma am koog moom ah. mais euh, voilà comme lu ma la wax rek Franc Franc dafa nekk nit koo xam ne dafa ma ñëw seet si ba sama kër donc vraiment xamanteeg sama sama sœur yi xamanteeg sama sama sama soxna donc euh, vraiment donc loolu loolu la daal mm-hmm, loolu la mm-hmm. waaw waaw mais ba tey bu ma continuer ak ci diggante Sa Thiès boobu laa lay laajee sax ak Franc est-ce que ñoom ñaar actuellement làmb boole na leen mais làmb boole na leen ah. làmb boole na leen Sadio Sadio rawul Franc. non rawu ko. rawu ko ay xale lañ rek ku nekk dañuy dañuy mayante chance rek. ah hmm. palmarès su Sa Thiès ak kase Sa Thiès est-ce que Franc actuellement yegg na foofu. mais Franc Franc def prouvé na ah. Hmm. ah Franc prouvé li ngay wax ci suuf nga koy wax. ma ne daa mel ni est-ce que ñeme nga li ngay wax. ma ne ñu lu may wax ne ñeme naa ko. Hmm. Sa Thiès ak Franc loolu combat la. combat la waaw combat la kay. combat la oui combat bu neex lay doon sax. parce que ñaari xale lañu. mais làmb ji taxaw na actuellement non lépp a taxaw sax mais làmb ji la plupart tamit. waaw ak promoteurs yi jotoon dugal seen xaalis. waaw mais nag dañuy dañuy nangu ndogalu yàlla rek. Mhm. yàlla rek a ñëw. Mhm, donc nañu nañu gëm yàlla. Mhm. xam ne ne bon affaire bi tôt ou tard après dina reprendre. dina baaxaat donc dina baaxaat donc euh, vraiment lu ñuy ñaan rek mooy ñaan kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi si réew ñu ñu ñaan. su ko defee yàlla tegul ñu tegul ñu coronavirus bi. Mhm. su ko defee ku nekk repenser activité. am na solo yow en tant que coach su tey. waaw di connaisseur actuellement période de confinement lañ nekk ak couvre-feu yu mel ni ñooy état d'urgence. tey athlètes yi nga xam ne ñooy mbër yi la plupart loolu leen diggal ñu war ko liggéey ñoom actuellement ban planning la war a def pour entraîner. donc planning bu ñuy war a def mooy euh, mun nañ. toog sa kër taxul nga nga nga bañ a donc mun nga six heures du matin wala six heures six heures matin mun nga dem géej mhm. donc yow kese donc ànd ak nga taal sa oto dem côté géej nga soo gaaree mhm. nga entraîner def say footing mhm. yow kese donc ànd ak oto dem côté géej nga soo gaaree nga def say footing balaa balaa sept heures balaa huit mu fekk la sa kër. Mhm. nga toog récupérer mhm. soo soo récupérer ay booru ngoon nga jël sa corde à sauter. Mhm. donc euh, corde di def euh, parce que une de temps de corde. mais par avec des séries. donc euh, mun nga def PPG. PPG mooy préparation physique générale. donc mun nga ko def sa kër. donc def ay pompe def ay appui avant. donc dina am loo xam ne dina la manqué mooy contact. contact contact bi donc comme dañu nekk ci période boo xam ne restez chez donc mun nga toog mun nga toog. Mm-hmm. sa kër def say entraînement. Mm-hmm. et puis ba activité reprendre nga. continuer nga reprendre daal waaw. course bi daa mel fi mu nekk nii daal bu la neexee mën nga tàggu ñu lay seetaan ci Leewtoo TV ak internetu Leewtoo TV mais tamit bëggoon nañ nga sànni ci tuuti cadre français quoi cadre tubaab parce que la plupart ci ñi seetaan tamit am na ci ñoom ne dañuy soxla loolu. waaw waaw vraiment maa ngi euh, maa ngi nuyu ñëpp. Mm-hmm. di ziar donc euh, vraiment euh, di ñaanal ñëpp jàmm mhm. donc Sénégal euh, réew mu jàmm la mhm. kilifa diine yu baax a fi nekk mhm. kilifa diine yu baax a fi tëdd donc vraiment nañ tappe xol yi ah raxas xol yi yeneen te jàmm donc te jàmm rek moo am solo. dinaa la laaj leen tamit balaa may tëj sax. Mhm. parce que koy balaa may tëj dama gis fan yi que ni tamit euh, bi affaire bi amee bi président woote wax rawatina sportif yi gis nañ ku mel ni ñoom Gorgui Sy Dieng ay Sadio Mané ku ne am nga loo génn ci sa alal bër gi démb Youssou Ndoye gis nañ ko mu jënd ceeb bu bëri diwlin nag ay saabu joxe ko. Mhm. sportif yi tamit di def lu mel noonu yow loolu ban gis nga ci am ak ban ban kàddu nga ci. non lu lu baax la lu baax la vraiment euh, dañ ne. Euh, dimbalal koo tane. Mhm. ah donc loolu la waaw voilà donc nga dimbale koo tane. donc ñoom góor gi Saint góor gi si Dieng maa koy nuyu sama xarit. Mhm. donc vraiment mu nekk nit ku baax yàgg na yëngu si sociale bi. Mhm. donc ñoom Sadio. ñoom ñëpp daal vraiment ñu regroupé wu di dimbale si seen askan loolu moom mooy loolu mooy solidarité mm-hmm. donc loolu la soxla si sénégalais yi mm-hmm. loolu la soxla si homme de public yi mm-hmm. loolu la ñu soxla si euh, ñoo xam ne am nañ kattan am nañ doole di dimbale seen seen seen réew donc vraiment parce que Sénégal moom moo ñu yor Sénégal lañu bëgg donc euh, vraiment donc euh, vraiment initia initiative bu ñu jël mm-hmm. vraiment initiative bu baax la mm-hmm. donc Youssou Ndoye sa xarit mm-hmm. di ko nuyu di ko ziar ci vraiment si geste geste bu mu def donc yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla may gudd fan may ko wër sàmm ko sàmm ay njabootam yépp waaw vraiment waaw benn mot ndaw rek ci tubaab waaw mais vraiment je remercie euh, tous les tous les euh, fans. Mhm. je remercie euh, tout le. Euh, en français tuuti rek. waaw vraiment je remercie Leewtoo TV. je mhm. je te remercie Babacar. merci donc pour tout le boulot le bien que tu fais. Mhm. donc vraiment chapeau à toi. chapeau à tout le groupe de Leewtoo TV. donc Coach Jamon vous remercie. et vous vous dit bah. continuer mhm. sur cette lancée et puis euh, ça ça viendra. merci merci. donc bëggoon naa nuyu nag aussi sama sama sama famille ah. waaw waaw ci yoon waaw waaw voilà. <laughs> nit mbokkam. <laughs> voilà voilà xam nga nit ki moom sa mbokk rek nga am vraiment maa ngi nuyu sama sama sama nijaay sama grand mhm. maître Leyti Ndiaye. Mhm. donc euh, bâtonnier de. du doon des avocats du Sénégal. Mhm. donc vraiment mhm. vraiment di ko nuyu. di ko mhm. ziar. donc vraiment mu nekk nit ku baax. nit ku am yitte. vraiment euh, bëgg famille am bëgg nit doomu doomu aadama yi. donc di def social nag lu bëri. donc vraiment di ko di ko ñaanal yàlla. yàlla na ko yàlla may gudd fan yàlla may ko wër yàlla sàmm ko bu baax sàmm njabootam du nuyu famille famille Njaay bi du nuyu famille Tall aussi mm-hmm. famille Tall ku si mel ni sama sama benn sœur bu ne nga xam ne mooy mu ngi Nigéria mm-hmm. donc Ndey Tall mm-hmm. donc muy nit ku baax donc yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko gudd fan may ko wër sàmm ko bu baax a baax a baax a baax vraiment donc du nuyu monsieur et madame Mangane nga xam ne ñu ngi tuur donc euh, yàlla na leen yàlla defal jàmm